الله بفل اللاعس الله والقلم بجفة الأهلاب لم تنهني سلم سلائي بفل الله ذي اللون والقلم بجفة الأهلاب لم تنهني سلم

خلقه ولم ينهني مكر ولا جور من سلم خوف ولا مل ولا سدم شكري لباخر أسهد جن أنهم ما في اعتراب عند مجر مع الخدم جلالي بما لي بان في هام جيسس جليل الكفان كيد والدر والولم وسلم إلى الله قد وجهت كلي مجاهدا بزهر وشكر ملازمة اللخم لقد جاءني في داخل العسكري نداء ولقاد ربي مهجر الجيش بالنهم يوم الرضوان من كل وجهة ولقاد يمن الذكر والخد والخلم يوم الرضوان من كل وجهة وليقيد يمن الذكر والخط والقلم إليك يا خير البرية سلام حديمك الذي كفيته ملام إليك يا كالذي كفيته المنام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته المنام صلى عليك أبدا والسلام حسن مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وخام

بك الخيار سالهين بسمان لك لدى رب الورى كل مرى لك به يا سيدي الأسمى اختراع يا دلنا هاهل دار فأنت سيدي خير الأنام yaa xaaidan li min ilaahika almara dubtu lira bisairan bisa nisa laka wa qablu habawta bilisa hadiyati ila jumada saniya بشارة للخيول هليا هليا فدو wute jumaat ma doon fa sadd ay bayit ci ab jotaay ngir waaru man ànd na ma samay xarit baag yof ci waa jumaat ma doon fa sadd ay bayit ci ab jotaay ngir waaru ànd na ma samay xarit baag yof ci waa jumaat ma doon fa sadd ay bayit ci ab jotaay ngir waaru man ànd na maag samay xarit baat gu yóob ci waaju maat ma doon fa sadd ay bayit ci ab jotaay ngir waaru man kookaa di Seex Useynu Kan ku yàlla may ci wàllu kun te yàlla def xamul ku bon réewum Dakar te xel ci gan ku sopp ahmadul xadim te am lu yàlla def ci moom dafin warey du wax di miim lii rekk a tax ma naw ko man dafay ku sopp alxuraan ay toolam it di alxuraan ku ñëw mu foog ci alxuraan jox la nga dem dajeeg la gën ku xàmmi ko ci seexisaal am ngërëm ci seexi biram du dooni xiili xaal ndax kum gërëm nga raw lu bon kuy àndandoo wutil ku baax day fel lu bon andil la mbaax seex woo la def ku baax ba tax sa maas gi yaa ci gën nit ñaa ngi lay xëy di ziyaar ngir jëmi waahidul xëxër ku ñëw fi yow du fandereer sëriñ bi yaay ki gën ci ñun tiit bi la ñëpp bëgg yéeg dafaw am ca gaañu toog ci suuf di sentu gaañu yéeg seetal ma Cheikh Ousseynou Kane zaaka siraaji jàmmalaay foo nekk ñooña def la waay te xam nga man nga weeru waay nafan wi yaa nga sax fi nun biis ni rabbal alamin li Ahmad al Hamid xamal ni yow la nit ñi Seex Saali woo la fi nun sëriñ na doon ko ami leer te xam sariixa xam bu wóor te gëm aqiiqa seex lu buur féeteeg borom bi mel ni gën isxaala Ahmadul Xadim fi jawharin na fi si ndéem banaan ca xel di mooyu koom لبود مالك يقن ومن يشارك الهنا في عزهم يكن أنا شريكهم أنبخنا زنكم يمون يمون إلي تخون بشيخ سال دالين جرم تمستلال سينوب درم بلومنال دفتي يفهم دي دولو بن إلي تخون بشيخ سال daa leen jëriñ te masalaal seenu dërëm ba lu mu di daw bon sëriñ bu mel ni seexi dootu fi am na ngeen ma baal xam naa ni sax yàlla du jeel subhaanahu kañ ko man ku ni bamba dootul am ñu ni doom ya dootul am bamba taxoon ñu daa fi am saa wax ji fii la tënku man sëriñ Ousseynou wéet nga yow sa waaju baax ja ñepp naw wan la gannaaw te dootu ñëw dootu rëy fi ñun ku am ku mel ni seexi saal nga gis ñu waxti di suul sa xol bi dootu jug ci yàlla buur bi man xam naa man alduna sax dina ma war ma dem ci pax ay fan yu néew yu dooni sax di reeti man ma mel ni bon ñuy wan njaboot gi say nataal ñu fomm soxla yi ma naan tàggale maag daraa ki gaal ma dem fu weddi genn gan suñ waaju baax ja seexi saal demam nga moo ma yóbbe xaal ndax dee ngi nii ma seen ci gaal muy sànni mbaal mi jëm fi nun bu doon njariñ la kon du dem bu doon ci baax la kon du dem bu doon wilaaya kon du dem di wan gannaaw Ousseynou Kane Seex Saali woo mbiram du jeex te maa ngi wax bay bëgg a geex lu Seex Musaa Ka dem ba jeex te jeexalul kon naka man sëriñ bi kon defal ñu ñaan ñu dellu tool ya ndax sa ñaan du teggi yoon wa jëm feneen jaaraama Seex Useynu Kan na yàlla may la fan wu yaa yaram yu wér wërsëg wi yaa te sab dem bëgg yaa ñu xam sëriñ bi moo di kan